barab bii euh, liñ ci mën a wax rek mooy euh, barab bu tedd ngeen ñëw barab bu tedd boo xam ne bu doon ci tubaab dañuy wax ne c'est un lieu saint barab bii di buqatul mubarak olof yi dañuy wax ne mbay dee la tuddoon waaye euh, baatub olof la rek olof yee yàq baat bi waaye séeréer si tudduwuñ ko woon noonu séeréer si dañoo ko tuddee woon dañ koo ñagoon tudde ko toolub suñ borom kenn du fi damm bant kenn du fi tuur ndox loolu nag suñ boroom ci boppam moo moo moo moo moo moo moo moo dencaloon sëriñ bi suuf si pàkk bu tedd nga xam ne bi sëriñ bi jógee Jolof euh, ñëw njaareem mooy bi ko tubaab yi indee njaareem te sëñ bi bi ko tubaab yi jëmasee njaareem te sëñ bi ne raamoo masiir yi ilaa la daal asasin bi mu ñëwee njaareem mi ngi daloon CMT lañ ko wàcce woon mi ngi fi ñëw nee nañ le 12 décembre 1912 la fi ñëw waye bu Boukhatoul barak ñu ko sanc né nañ le 1500 janvier la ñëw bu Moubarak. barak yéen ñëw ci pak bu tedd pak bu nga xamni sëñ bi mo ni mo waxon ni wajhal bihi daariyakal madina barakatan wa kahbatan maçon ni waaw kon pak bi da ma defal sama kër ak sama dar yi barke ba ca Makka ak Madina ma ko defal ci sama kër ak sama dar kon fi ngeen ñëw ni tay pak bi fofu la nek mo ni won waxon tamit lahu hitabi amatal sin la da bu yella tii tunil barada nee fu leer fu nekk ci dara pakk bii ngeen ñëw foofu lay leere ci pakk bi. wax ne ab pël dana nekk ca jolof lekk ba suur di sàmmi nagam jàmm jam am ci téere bi la jógee ci pakk bu tedd bi la jógee wax na it pakk bi dinaamo bi fi ne mooy leeral bépp pakk buy leer ci kaw suuf armée li fi nekk sëñ Tuubaa moo ko rëdd ndar kepp ko kii jur ab taawam fi la ko denc muy waajuru soxna ca ki jur am caatam muy waaye juru Cheikh Mouhamadul Mourtada fi la ko def wax ne ku ñu fi denc ci suba àjjana ngay yendu ji bu dee ngoona fa ngay fanaan ni muy luñ gëm ñun ñu yaakaar seen di barab boo xam ne def nu fi fukki at ak juróom yu mu ko génnut kër gii ñu taxaw dégg naa ci làmmiñu sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chooy bu mu wax ne sëñ bi da ko xaajoon ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi kër boppam la ko tudde woon fi la doon dajeek talibé yi xaajub ñaareel bi mu tudde ko kër yonente bi Mbàkke la doon dajeek ñenn ci xaj ñi xaajub ñetteel bi mu tuddee ko kër suñu borom kër suñu borom nga xam wax nañ ne sofa massa nek nekk kenn du cik fa kau kër gi it sëriñ bi dafa waxon ne nañ ko sakket ba bu nit yéegee ci gilem kaw gilem du gis li na ci biir kër gi nga xamne ne kër gi bu fa massa dugg becc ga guddi ñoy tan mak ño xamne wax na ne bu reeru bopam ñu bokk ak mom ñu sakketal ko jumaaji moy yi war jumaaji yépp sëñ Tuubaa leen fa indi ñu sàkketal ko barab nga xam ne dañuy wax ne sëriñ bi biñ ko bi mu jógee Mbàkke Bari ba ni mu demee jeewal ba ni mu demee Ndar ba niñ ko exilé moo dem ci géej gi ba niñ ko delloosee fuñ ko mës a yóbbu lu jël bakkanam rek a taxoon ñu yóbbu ko fa ak lu nërmeel lislaam waaye biñ ko indee njaareem résident surveillée nag nga xam ne dem nañ ba amatuñ pexe ci moom ñu indi ko njaareem nag ci la sëñ bi amee daluk mën a organiser yoonu murid mën nañoo wax ne lu ci bari mag ñu bari ngay dégg seex su bari fii la leen sëriñ bi duye bañ fees fi la leen defaree nga xam ne bu doon pépinière la dañ naan fii la ko pépinière kon njaareem li may wax rek nga xam ne dama daa wax ne bu Touba nekkee Makka njaareem mooy madinatul munawara waaye sëñ Bass Abdou Khadir moo ma wax ci làmmiñam ne ma déedéet del wax ne njaareem may Makka Touba mooy madinatul munawara xam ne jumaa jii ci suñ ginnaaw euh, sëñ tubaa ko fi def. ci kanamam la jumaa ji sottee moo teg xeer wi moo tibb ciment bi ñaan sëñ maxtaar bintaloo moo dugg ci pax mi sëriñ bi jël ciment bi ñaan ci teg ci mool bi sëñ maxtaar binte jàppale ko mool bi mu teg xeer jumaa ji sëñ bi ubbi na ko julli ci wax nañ ni ñii ne nee julli na ci benn it ñii ne julli na ci ñaari it su julli farata ko doon ci biir ji ci biir kër gi nga yu bari yu ñuy wax bi doon sëñ Cheikh Gaynde Fatma mu yeesalaat jàkka ji jumaa jooju Yelli Jóob mi nga xam ne nekkoon na Gabon doon xeex ci jàkka ju fa sëñ defaroon te tubaab yi yàq jàkka ji Yelli yéeg ci kaw bureau commandant bi wax ak tubaab bi ba daal ci kawam ba nga xam ne dañ ne ña nekkoon na ko tëye waaye kon mu xeex moom ci tooñ guñ tooñ sëñ Touba te tooñ gi moom tàmbulee na ci bañ ko yóbboo rek bi jumaa ji àgg rek. sëñ Issa di jëbbal sëriñ bi caabi ji dafay fekk yel li muy mu dégg sëriñ bi ndeysaan ñëw ndar ñëw ñëw ñëw ñëw ndar ñëw congé ñëw di siyaare si sëriñ bi njaaram bi mu dikkee sëñ bi daan sëñ Issa àndal ak moom mu wër barab bi kon mañ nañ ne yelli bokk na ci njëkk visité jumaa ji bi mu wëree jumaa ji ba dikk sëñ bi def na ko waaw barab boobu nga gis nu mu def ak sama jàkka ja taxoon ngay xeex sa ca lambar na ca gabon yelli yuuxu xamal ko ne ko nag jàkk ji moom du sax moroomam sëñ bi ne ko nag joojee ji lañ ma ko fayee waaye ji ma suñ boroom dig mooy ji ne mooy Touba ji waañ lay doon ci moom ku dem Touba da nga xam ne euh, jumaa ji ko suñ borom fayee nga xam ne tey dañuy wax ne patrimoine mondial la Sénégal rek moomatu ko adduna bépp ko bokk nga xam ne tey entretien bi murit rek waratuñ ko woon état Sénégal rek waruñu ko woon a waaye waaye Union Afrique bépp mooy Nations Unies ci boppam laay wax sax ne ñoo waroon a yor entretien bi ndax patrimoine la muy jumaay njaareem ji kon njaareem li fi nekk lépp mënuñu ko wax li fi sëñ bi def ci xar baax mënuñu ko wax Sëriñ Tuubaa moo rëdd daari kaamil ji dégg nga ci ndigalal borom ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam yónnee ci dekk ba ay seng ak bant maam seebar fa ñu xad ñu seng ko mot ñaar fukki xaasifi quran ak juroom ñett ñu di fi wax nañ ne boba ñaar fukki juroom la am ñu wax lool moko mot li mom ak sun mo do sax sun wani daana joge ci kër ga ñew fi fitatu ab ab jukki mu jang ko muy ñaar fukki xaafis alxuraan ak juróom-ñett 1913 ba nga ni dégg ñoo fii nekk mu arafi Tuuba di jàng kaamil bi bët bu set danañ ko jàng juróom yoon ñaar suba benn tusbaar ñaar takku takkusaan mu toll ak salawaatul xamsi yi julli juróom maanaam julli ko nekk ab kaamil kon dañ ko mën a xaymaa boobaag léegi yàgg na. ku fi bàyyi ko ku nekk bàyyi doom joo xam ne ji mën na laa wootu ñu andi ko fi mu wootu la wala sët boo xam ne mën na laa wootu ñu di ko moytu buñ ko amul nag ñu seetaat ci ñi xam ne ñoo nekkan ci dëkk bi te tànnal Serigne Touba ñu seet ci seeni doom képp koo xam ne mën ngaa wootu ka fa bàyyi ko ñu andi la nga wootu ko ci loolu daal ci lañ nekk di ci jàng ba nëgën ba mu jógee ca seng ba it Sëñ Lamine Diop Dagana moo laaj Cheikh Ahmadou Bachir ndigal ngir mu yeesalaat ko bu ko joxee ndigal ca ko tabaxan tabaxaan it ab tiwit la woon ñu def def war ci la gannaaw bi dañ ci defar ndaay waaye néeg bi rek moo neen fe jàng rek moom moom la xorom ci sëñ Malamine moo ko fi def bi ñu demee ba loolee di màggat it njóoboor ko sëñ Malamine ñoo koy salaat ba mu mel nii mu mel tey jii ñu defi jàng ba tey. ñi fi nekk ñëpp it li seen yitte mooy xëy jàng si bu bëccëgee ñu ñëw bu ngoonee ñu ñëw amul lu ñu gàddu lenn nag lu may sëñ Tuubaa rek moo leen gàddu léppam dégg nga amu ko ñuy fay weer wala ko ñuy wax lenn waaye sëriñ Tuubaa ci boppam jàppal na leen jàppal boppam nga xam ni sama doom yi la leen tuddee woon ba lépp lu lu ne lu ne da leen ko yéene woon dina ko fi andi. wax ni wah képp koo xam ne kii ñëw nga ci barab bi ak ité joom mëna doon nga dugg ci biir ci sama barab bi aajo jojé tax la juk jeneen aajo ni wax waaju ji dana faju su fajuwul na nga sét sa bop wa di fi kep lu fi andi aajo dugg ci barab ñaan ko sama borom dana ko kep ko fi andi soxla yi soxla dana ko faj kep ku andi ak rag dana ko faj lolu moy barabu dari kamil bi sëñ bi moo seere woon ci fan yu mujj yi wax mag ñi neen garab gii de maa ko jëmbat ci sama loxo bopp bi daan ko sóot ci sama sata la ba nee na foofu la jëkk ñe meññitu àjjana mu ni bokk na ci li kay xamal ne yàgg fu tamit nga mi garab googu kon garab googu foofu la si mu daan toog di waxtaan ak mag ñi waaw di leen di leen yee seen diggante seen borom ci seen diggante si si si diggante diine ji nga xam muy diine lislaam li nga xam nan la war a taxawoon nan la ñu war a fonke jàmmu yàlla waaw foofu la toog itam dénkaane daaree kaamil gi sama daara ji na ngeen ma ko fonkale muy daare kaamil gi waaw waaw soppi jël taysir jël taysul asir jox leen ko ñu den den den ko xatmee kaamil bi di ko ubbee kaamil di ko tëjee kaamil foofu ci garab googu yi néeg boobu mu làqoo tamit néeg bi ñii nee na ñu si Issa Diène moo ko takkal ñii nee na maam Charain Fall moo ko takkal mooy mboobu néeg bi néegu néegu ñax la woon waaw waaw waaw waaye fi ñu ci li ñu fekkee gis nañ ni euh, saa su nekk rek bu ko dee yeesal waa kër sëñ Issa Diène ñoom ñoo koy yeesal waaw waaw kon nga xam ni kon ba tey ñaare wax yooyu Euh, mën mën nañu dëggal benn bi ni waa kër sëñ Issa Diène yi euh, kon ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko takkoon ndax euh, mooy mooy néegu ñax bi nga xam fi la sëñ bi làqoo le 19 juillet 1927 je la jógee ñibi Touba. jàkka ji tamit foofu moom moom it sëñ bi xam nga léppam ak jàngale la comme dafa nekkoon en résistance surveillée kon ci biir këram rek la sañ a def jàkka di fi julli di fi jiite mbooloo ndax jumaa ji moo ko liggéey ba mu àgg teg doj wi le 11 mars 1918. juma ji ag ci kanam kanamam 1924 mu inauguré ko waye teewul rakam ku ñu wax seigne afia mbake mo dafa tegoon muy jité mu nek imam waaw kon fi nak moom ci bir kërëm nak mom fofu la defon jakam di fa jiite mbooloo waaw di fa yee di fa tombal ma ngi di den yétam seen digënté ak seen borom waaw kër kër gi mo wax ay caisse yu bari mo fi nek kër gi ay caisse suñu bu ñëwé caisse caisse daf ko daf ko répartiroon ay ay ay ki ay caisse caisse yu nga xamni fi la moy caisse jigen yi fi la soxna yu tedd nekk nga ne bokk na bokk nag nga xam ne tey jii foofu la góor ñi nekk waaw waaw ak ay bërëbu boppam yoo xam yooyu foofu privé boppam la mu na néeg bu nga xam ne moom la ñuy wax bayti xelwatu ñu koy wax bayti kitaab foofu la sëñ bi daan binde xasida yu bari yu ma bind ci ci njaareem foofu sëñ bi dafa dañu di bind ay xa di bind li mu daan bind ay xasida li mu daan li mu daan ko daan binde kon mooy mooy mooy bayti kitaab mooy tabax weex boobu nga xam boo jógee si jàkka ji rek moom ngay jëkk jot boo demee ba ci biir kees gi ko jëlloo ci kanamam moom muy diggu kër gi kees googu la ñuy wax nii bayit moom la ñuy wax euh, keesu jinn yi muy kees goo xam nee na ñii nee nañu am na ñetti téeméer fukk ak ñett ñii am na ñaar fukki ndaa ak juróom-ñett yu fa nekkoon yoo ni saa suñu xëy suba dañ koy root bu ñu xëyee mu daal bu ñu xëyee mu jeex sëñ daan na wax yéen ñi koy root deen ko root te bu leen ci naan ndax ñu naan ak yéen bokk leen kon loolu moom mu la ñu foofu lañ keesu kees googu gi ci des nag ki sës ak moom euh, moom mooy euh, bayti rasul kees googu la ñuy wax ni foofu la ko yoon ci yoon ci am fa fi fukki fan ak juróom waaw boo xoolee fukki fan ak juróom yi sëñ Saliou diir li mu fi nekk at mu jot dana ñëw fi fukki fan ak juróom moom sëñ Saliou diir fi nekk rek at mu jot njaareem fi am fukki fan ak juróom nga xam ne ay rakam ak ay magam yi rakam yi ak doomam yeeg ñëpp dana ko fekk si bi ba ci waa gouvernement bi ñëpp ku ko bëgg gis fi nga koy fekk njaareem di ko ziaris